ginnaaw jongante bu metti jëmoon ci wàllum xeex salte ñu dippee ko quartier zéro déchet ci ay kaw njoñam waa conseil de quartier bu an Pêcheur 2 nekk ci commune bu an Bel-Air mujjee na ñoo jël raw gàddu ga ca noone la ñu amal seen programme bu njëkk bu ñeel wàll woowu Pierre Camara di président conseil quartier bi di si indi ay leeral. tey la organiser lancement démarrage activité quartier zéro déchet waaw xam ngeen projet zéro déchet bi projet gouvernemental la waa UCG ñoo ko porté bu ñu defee bu ñu lancé concours bi ñun bokk na si ñu ko ñu gagné concours bi nous sommes actuellement treize dans la dans le département Dakar waaw projet bi nag xaw na yàgg tuuti am na un peu de retard xaar leen te ëllëg ginnaaw suba mais daal avec xam naa euh, décision président de la République nous a fait ngi wax affaire u gérer Sénégal propre c'est si jël euh, courage à à pour que nous démarrer euh, démarrer projet quartier gérer déchets projet bi initiative UCGL, union union pour la gestion des déchets des déchets solides d'accord ministère de ex ministère environnement maintenant ñu rattaché ko au ministère urbanisme ak euh, hygiène publique et ak habitat de quoi il s'agit de mettre la population en en responsabilité ñu jox population eux-mêmes nous occupons wu enlèvement ordures surtout déchets solides et surtout aussi deuxième phase pour pour transformation bi dindi nous bi jëriñoo manière bi waaw surtout l'homme le projet idéal quartier il déchet moom ba choses. mu ngi ñuy xamal ni dinañu formation ngir lu ñeel transformation déchets avec collaboration UCG ak ñeneen sax initiative ay ñoo euh, xam ne sont experts dans la matière Nous nous formons ñu après nous on va démultiplier waaw pour compostage euh, plastique euh, valorisation transformation loolu c'est prévu mais comme vous ko il faut ñu am formation pareil pour que après nous maintenant mettre à aller à l'œuvre mais xam nga une la ñu communauté la ñu une communauté souvent nous dañuy am volonté waaw bu dee état état man na un peu souvent a des moyens mais pour appliquer mes communautés euh, communautaires des am ben désir de bien faire désir de réussir hein. on est en groupe on habite ensemble on essaie de réussir avec ça avec cette volonté là il y a naa que si nous joxee les moyens on pourra réussir. bu nous sukkandikoo ci mom batay tey ngi appel bépp ndaw ngir ñu gëna mëna japp ci si liggéey bu ni mel. je yi ma wax. pour affaire affaire affaire de quartier la mooy comme affaire nawetaan ñu ñëpp bokk waaw parce que quartier bi euh, du ñu xaar mairie wala gouvernement wala kenn jóge fee ñëw defar ko waaw waaw béy sa weeru tànk d'accord surtout que dëkk bi léegi trois quarts yëpp ay jeunes la ñu d'accord suñ su jàppee dëkk bi quartier yi na set na si mën a am koom-koom na si mën a am cadre vie meilleur waaw dama laaj que muy jeune muy je surtout les jeunes filles ñu génn mobiliser ñëw si hein, ñu conseil de quartier c'est une initiative euh, dans le cadre de la décentralisation responsabilisation développement durable gestion. d'accord nous, on est les pionniers. yaakaar na suñu rakk yi suñu euh, doom yi ah dinañ continuer bi. ginnaaw seen lancement programme zéro déchet bu ñu amaloon ñoom waa Hann Pêcheur 2 ñoo ngi ñaax askan wi yépp ngir ñu ànd ak ñoom ci seen xeex salte bi ndax lu nu mel mën fee jóge